problème. <laughs> <laughs> nan la bala ke war a ñëwee. ma jaax dafa ma bàyyi ci biir de. dama doon question mu ko posé nii daf cee war a tontu de. ah waaw daa yor ko tontu de. Mado. ah. bàyyi moom moom moom laaj ko laaj ko daal deux fois moom. laaj ko moom moo la a jox. jàmbaar foog nga may ma minute de. wuy eh, wuy ma ne may ma minute rek. non moom mën ma la may minute. ah. mën may minute. xool ko na ne mën ma ko may minute. non jaaru na may ma minute rek garaawul. mu ko la daan deux fois. moo la e troisième fois bi ñaata temps laa lay nga ñëw. troisième fois daan moom bàyyi ma gérer ko rek Mali bu ko forcé bàyyi ma gérer. ma ne Mali bu ko forcé. nee mun na ma wax deux minutes fekk daf may naax bàyyi ko rek may calculer lu mu génn fi rek. nga moom champion la quoi champion d' Afrique moom wax dëgg yàlla da nga koy jox cër rek. Malick. loolu mooy ñii stratégie yu garaaw la nekk di teg. nekk yaa ngi jéem a sa xelu Pape Fara euh, Euh, man dama leen bëgg ku ne mu poser la benn question. Mhm. Euh, Balla tey ak un peu de recul euh, soo dem jël di nga signewaat quatre contrats yu tegloo ay mbër kaamil xam ne xam nañu làmb bu ëmma jàmb fii booy ñaam ngi fii bombardier mu ngi fii ñële loolu lan moo taxoon nga def ko ci tolluwaay beneen bi sànq ñu ngi ciy wax. yaa ngi tudd Messi tudd yooyu yëpp macha allah ci 18 ans de carrière am ci victoire jël ci bëree bëri est-ce que teel a am ndam yu bëri bëri yooyu handicapé wul un si sa carrière boobu benn la mun nga cumiler ëmma tamit presque vingt ans de carrière wala mu ëpp ko nga am ci ay ndam am ci ay défaites lan mu expliquer longévité boobu pour mbëri yi lay seetaan lan nga mën a tamit teg seen loxo gannaaw Balla bu ñëwee ci quatre combats yooyu mu teg la jël ko lu tax avec le ndax di nga ko jëlaat wala déet. mais bien sûr moo xamoon léegi dama koy jëlaat parce que mooy suma métier. di gars yi di xëy dem ci bureau yi laay xëy di dem ci entraînement yo di dem salle wala dem diin wala nga dem géej wala nga contact parce que mooy suma métier moom laa am moo ci noppee rek noppi naa ci mais bon victoire aussi tamit yàlla moo koy joxe euh, ba mooy dugg ci làmb ku def sept ans nekk des arènes daan ñu fi mun ñëpp aussi tamit loolu mbiru suñu borom la. du man maa koy décider wala man maa koy nga xaw a naagu ne xaw naa fi def lu gën a gaaw mu am handicapé un peu yaa ngi wax euh, xale nga euh, mais peut-être ci fin bi da dem ne ah daan naa yëgi nii daan naa ñi fi nekkoon li ci des daal est-ce que xaw ñëw sa esprit nga xaw ko oyofal voilà teggi tànkam tuuti quoi no du loolu sax xam nga man mënuma naagu parce que ku màggee ku yaroo ci keppaaru koo xamante ne def na loo xamante sax defoo am sama papa nekk na champion d'Afrique dem fu ne jël lu ne gis lu ne man bu ma ko gisee te loolu defu ko dara amu droit di naagu xëy na bon suñ borom moo jaglee noonu ay mbiram rek. est-ce que embourgeoisé wu tamit surtout dafa mel ni da nga embourgeoisé wu embourgeoisé wu mooy <laughs> léegi macha allah euh, xaalis bi euh, xaw na takk tuuti ah euh, voiture climatisée kër climatisé yo yo ak mbër nag daa am lu mu laaj quoi Balla. Balla léegi patron nga de. mais mais léegi est-ce que patron googu nga nekk tey. du tax léegi booy dem entraînement motivation bi ci war ah rey sa bopp bi ci war ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak yow euh, maanaam commandement bi ñu la war a commandé sax est-ce que dina am mayeti nga leen loolu. non mais Malick milliardaires yi sax ci kilim la ñuy yeewoo te ay sportif lañ au niveau te ay milliardaires lañ seen waxtu liggéey bu jotee dañuy dem liggéey. ça ne rien à voir ak ay clim wala oto wala nangam parce que loolu fii lañ ko fekk quoi non <laughs> man boo ma fekkee man ci mbedd laay foowee ba léegi nii may wax ak yow. mais coono yi nga daan daj est-ce ngi koy daj. baax gën a bëgg parce que imagine toi yow ci zéro nga commencé. di daj coono ba yàlla dimbali la nga mën a zéro lu bari mais coono boobu chaque jour da ko war a tàmm parce que moo nekk suma yaram. bëgg naa gën a évoluer ci li ngay wax ni kon nekk am xaalis gën a évoluer tamit ci. am lépp mais loolu ba mu ay coono mënoo ko mënoo ko am. benn instant danga xawoon jël tuuti recul par rapport ak école de lutte Balla Gaye mais delluwaat nga fa de. non xam nga day toll boo xam ne comme par exemple tey maa ngi doon def li mën a def mais école ba nit ñi ñu fa contact parce que boo fa demee nit ñi dañuy ñëw fekk si la xale yi supporters yi doo doo mën a sax. liggéey li nga bëgg quoi. ak ak léegi da ngay dem géej wala nga dem diin loolu. moo tax ak yenn espion yi. ak espion yi ñëw rax ci <laughs>